wala ngir gunge ko gan yi nga xam ne ñoo ñëw ci dëkk bu sell bi kon ci jataay yooyu la ñuy continuer ba léegi tey ji ñuy waxtaane kenn ci kàngam yi nga xam ne moom moo àndoon ak ku tedd ki euh, di maam Thierno Ibrahima Faty sama mbokk mi di na mu ànd ak man ci mission bi suñu borom ne kon danaa la dooleel danaa la dëgëral dëgëral sa sa sa loxo ci sa mbokk moomu lu noonu itam wala Seydina uh, uh, ma Ali ak ni ni meloon ci sa alayhi sa sallam loolu lépp sëñ Moussa uh, ci marché maam Thierno mi ngi ko ci junj taxawaay bi mu amoon daal mooy taxawaayu mission bi sëriñ bi jógoon muy islaax ak tajdiid borom daaru da caa joué rôle bu ama am solo boo xam ne daanaka da nga wax ne mënu ci woon a ñàkk ne ci wetu sëñ bi ndax bi bi nga xamee ne sëñ bi tàmbali na woote yoonu mu di sax te lenn ci doomi soxna yi di di ko tuumaal di wax naan sëñ bi dafa fay jàng yi léegi tarbiya rek daara joo xam ne nangam nangam daaru la ñëw ne ko damaa bëgg nga raxasal ma sama der ndax doomi soxna yi dañuy wax ne damaa fay taali jàngu yi te ku ne xam ne ne fayu ko ndax boobu la boobu la daara yi gën a riir boobu lañ gën a jàngale alquran ndax sëñ fu masane rek mbàkkeeg jaaru salaam ak tuubaa gi daar ay daara fi woon ay daara yi alquran ay yi xam-xam ma maam Cerno di jàngale alquran di jàngale xam-xam sëñ sëñ nekk fee sëñ bàkk yi nekk fee kon daara yu mësta fay waxtu wu nekk mi ngi waaye mun bëgg na nga raxasal ma sama der ba nga xam ne eh, li doomi soxna yi wax dana dana dana deñ dana dana doon loo xam ne kenn du ci teg ba loolu maam ci taxaw ci ba waxuma la moom ci jëmmam moom ndax loo loolu gars yi di di daan way bu njëkk naan bàmbaa ko ne baa ba ne ko bàyyil <laughs> loolu loolu ba bi mu ko koy defal su ko mësaan a jàngal bàggal da koy wax ne ko léegi nag lii laa man léegi li ci des nag maanaam mbokk na ko dimbalee mbokkam <laughs> nga xam ne loolu moom kon seen diggante la waaw waaw muy muy muy muy muy jagle goo xam ne ku baax ki dégg nga baaxee na ko ko ci ci ci maanaam seen diggante ñoom ñoom ñaar bi sëñ bi ñibbisee fekk yoon wi mel ni mu war a mel fekk na lu jiitu mu ñibbisi xam ngeen ne yónnee na ko lettre yu bari lettre yi xëy na dañuy bañ a guddal rek waaye yu bari mi ngi ci mi ngi ci maanam xëy na maj moo yeeg yu mel noonu sëñ Abdou Khoudoss ñi am nañ ko ku dem ku demit ci téere bi nga xam ne moom la xalifaam bu baax bii fi nekk di Cheikh Bachir muy Cheikh Ibrahim fii ay fii fii ay ayaamihil xaalida nga xam ne ñoo ñoom ñii sëñ Abdou Khoudoss ñoom ñi sëñ Ahmad ñoom ñoo ko taxqiq eh, saraa ko bindaat ko mbind mu gën a dëppook jamono macha allah bëkk démb la ma yónnee benn nusxa mu am solo lool amoon naa nusxa bu njëkk bu yàgg mu am solo nga xam ne leetar yooyu mi ngi ci leetar yooyu ci bare bare mi ngi ci téere boobu ak ci ci ci ci majmuwa yi kon du duñu ci duñu ci duñu ci xuus lu yaatu waaye leetar boo ci jàng rek da ngay gis ni ko sëñ bi wooyee dégg nga ida di adudi kitaabi fa karrimil kitaaba bil mataabi ama loolu doy na sëkk yow yow mi nga xam ne yaay sama loxol saa boo xamee ne sama euh, bataaxel bi agsi na ci yow li nga koy terale rek mooy tuub delluwaat ci suñu borom nga xam ne mi ngi koy gën a soññaat kon ci muy gën a yéeg waxtu nekk ñibbisee nag taxul mission wàcc fekk na lu jiitu mu ñibbis xam ngeen ne ci ci weer ay 1900 la ko bind bataaxel digal ko muy mu sanc daarul naan mu sanc daarul mannaan bi mu ñëwee ba dem daaru salaam gi mu rafaatale woon mbokkam mu baax ma rakkam ji tee borom euh, gaawaan ba ba noppalu fa ba mu ganale ko màggal ci la nag <clears throat> ñëw nag ci kër këru daarul manaan gi foofu borom daaru jàngal na fi bind bu am solo ci fekk na lu jiitu xam nga daarul manaan gi fekk na sëñ bi ndar fekk na sëñ bi ndar sëñ bi woolu na ko mu jaar ak Cheikh Sa Dieng mu dem fekk ko ndar sëriñ bi waxtaan ak moom la bare bare ci tukki bi borom daaru it rendre ko compte ndax ginnaaw dañu koo dénkoon mission la boo xam ne dañu ko tegoon ci loxoom te borom mission bi ñëw na faaw dana ko rendre compte mu rendre ko compte li nga xam ne moom la taxawee am lu ci bare bari ci la ko sëñ bi xamal ne ko Ceerno day bañuma ku xeeñcu sama mboor dem naa ba dellu si saalituma fenn yoon saalituma ci ci tukki bi benn yoon waaye bañu ma ko xeq ku xeñ ko sama mboor itam koo ko xeñ ko yaakaar naa doo gis dudul rek loo xam ne lu ñu sant leen nag lu ñu gërëm bi mu bi mu ñëwee nag ba bi muy bi muy ñëw daarul ma naan foofu wax nañ ne boroom daaru dafa juyoo ju juwe juweeloog sëñ bi bi sëñ biy dugg dafa génn moom génne ay bagage sama njabootam yëpp ci ëtt ba ndax war xam ne kat mooy borom kër nga xam ne moom da wutu woon te rafetal lool wuti win wi ñëw na kon nag moom day daal di dem waaye sëñ bi joxaat ko ndigal mu desiwaat ba gis ngeen xew-xew ya fa amaat euh, bi mu santee Cheikh Ibra mu yeesalaat kër ga te Cheikh Ibra yónnee ay laal ndar laal laal bi sax barki démb rek Cheikh Abdou Samad Soye bu mu sëñ wan na ma ko muy lu rëy xéwal gu rëy rëy laal bu yàlla bi nga xam ne daanaka moo waral mbaaxaan jaag yooyu muy borom daaru euh, ci yee ci bi bi bi mu saccee daarul ma naan ba Cheikh Ibra yeesalaat ko xam ngeen ne ci lañ ko tàmbali di tuumaal suñ bi naan day wut ay ngànnaay te fekk tànki laaj rek lañ lañ lañ gis jàpp ne ay arme la ba ci lañ ko euh, tumaalaate ba yóbbu ko fi nga xam ne waaye loolu lépp di wane rek relation Cheikhul Khadim ak ba borom daaru mu wéy nag xëy na li ñu ciy gën a tudd ci ay indiasaat tam pour tënk rek indiasaat yi da ci am yoo xam ne yoo xam ne xam la te lii lii ma junj léegi ci la bokk ndax kuy wax ay ay réalisation faaw nga tàmbalee ci lim lim liggéeyal sëñ bi ci xam-xam te loolu bu ñu yamoon rek ci jàngal gim jàngal njabootu sëriñ bi ak lu baree bari ci seexi yoon wi ci ci ci ci doomi magi seex yi da dana doy sëkk ci ay injazat ci wàllu ilm ci wàllu maanaam ilmiya yoo xam ne borom daaru da koo réalisé ci ci xam-xam ndax ku koo xam ne dañu wax ne yow yaa jàngal Cheikh Mamadou Moustapha jàngal Cheikh Mamadou Fadil jàngal ku mel ne suñu maanaam suñu Maxtaar Bintaloo ak ñeneen ñoo jàng ak njabootam gu baax gu tëdd gi nga xam ne rek doy nañ sëkk misaal ci xam-xam bu rafet ci ci ci ci dégg diine ci ci makaarimul axlaaq ñooñu rek kuñ ci tuddoon mu doy sëkk ba ci ñii nga xam ne ñun ñun daanaka ñoom lañ jamonoon tool rek ñu mujj leen a xam nga xam ne buñ buñ doon wax ne buñ ko so ñoom sax ay ndaw lañu par rapport ak ñi nga xam ne ñoo leen jiitu ñu ci saa waaye teewul ñuy ay ay ay kàngam yu mag yoo xam ne ci euh, maanaam produire borom daaru ci lañu ci la ñu bokk muy lu am solo kon waaye am na yeneen réalisation yoo xam ne itam defal na ko sëriñ bi ci dëkkam bi mu am rapport nag loolu foofu dinañ ko taxaw bu baax mu am mu am euh, sila ak jumaa ji muy jumaay Tuubaa ndax xam ngeen ne Cheikh Khadim bi mu ñibbisee ba nekk résidence surveillée ci njaareem yitteem jëpp bokkoon na ci ginnaaw bi mu tabaxee jumaay ji bàggal mooy nag tabax jumaay Tuubaa ji ne ci loxo yi Muxaddamatul Xidma tey jii ñoom ñi nga xam ne ñoo waral jotaay bi waaye bi mu ko bi mu ko xalaat bi mu ko njëkkee xalaat dafa woolu boroom daaru fekk na sax la jiitu loola xam ngeen ni am na ay kër yu bari ci kër yi sëñ bi sancoon diggante daaru salaam joojoog Tuubaa jeeg ba ci njaareem bi sëriñ bi digaloon na borom daaru mu yeesalal ko ko ay yoon mu yeesal ko yeesal ko ci ay sàkket yeesal ko ci ay seng ba ci kër gii nga xam ne mooy kër kër daaru xudus gi digaloon na ko ba mu ko koy digal sax da ko da ko wax na ko na nga fexe ba suuf si nga xam ne moo féete woon kaw na féete suuf di féete woon suuf féete kaw te it nanga ma fa defal itam ay sàkketi maanaam seng ay ay sa sàkketi weñ sàkketi weñ la ko waxoon ñu ñu bari naan loolu mënta am sàkketi weñ moom ci jamono ji <laughs> waaw dégg ko waaye ba mu ko wax ci Pastef je man de damaa bëgg ngeen xam ne sama waa ji du digle mukk mukk mukk mukk lu mënta am lu mu digle rek loolu daa war a am te man mii muy man mii muy digal itam du ma digal mukk lu ma dul def lu ma digal danaa ko def sëñ bi da ngay xool loolu ah, waaw ci ci pasté fi murit waaw ah, nga xam ne moom moom doyloo na sëñ bi wóolu na ko ba leer na ko ne sëñ Tuubaa moom lu mu bëgg dana am xar-xaru doj la waaye moom it àgg na ci pasté fi mu àgg na ci sëñ bi foo xam ne lu ko sëñ bi mën a sant ak mën a doon dana ko def na mu ko ko digalee moo waral sëriñ bi loolu mu gis ci moom yitte jooju ak pastef jooju moo tax bi mu amee yéene yi taxawal jumaay Tuubaa ji la la la la yónnee ci ndaw ndaw ndaw lu ndaw ci moom mu woolu ko booleeg lenn ci magi murid yi wax nañ ne ku mel ne eh, maam Cheikh Anta ci la bokkoon sëñ Balla Coro ci la bokkoon sëñ Mbàkke Buso sëñ Masamba ak Cheikh Mamadou Moustapha tudd nañ leen ci bi ñu ñëwee mu waxtaan ak ñoom digal leen Cheikh ngeen tabaxal ma jumaa ca sama dëkk boobu di Touba ñu tàmbali di ko waaj ak di ko yëgal taalibe yi waaye maam Thierno moom bàyyi ko daaru ak lépp lu mu am ak ku mu am wax nañu bisub gaawu tolloog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar weer wi ñu nekk nii ci atum 1345 nga xam ne du sori 1926 ci la jógee daaru mel ni kuy toxu rek ànd ak jaboot ak bagage gi lépp rek wut si Touba ngir fas yéene soobu ci liggéey boobu nga xam ne mooy liggéey jumaa jii tey boobu xam ngeen ne du du fii la woon jàpp naa ne mu ngi xawoon a jëm tuuti ci ci penku ci ci wàllu jullikaayu nawet bi côté yooyu foofu lañ tàmbale woon di ko dégg di ko fa def ba ni mu digalee Cheikh Mamadou Fadal ak ak ak sëñ Massamba ne leen nañ dem ci béréb bi nga xam ne fa lañ yaakaar ne xeer yi maanaam carrière bi ñu jàpp ne dana mën a liggéey jumaa ji ñu dem fa gëstu ko ànd ak mbooloo mu baree baree baree bari ba loola ca la carrière bi juddoo xam ngeen ne ba niñ ci Euh, sooboo ci liggéey bi waaye yàlla dogal ci dogalam <clears throat> at ma ci topp di 1927 la ku baax ki ñibbisi fii ci Touba ngir noppalu ci la liggéey ba taxaw xëy na li li li gën a li gën a siiw mooy fukki fukki weer ak benn xëy na fukki fukki weer ak benn am na ko. ci la ci taxaw waaye yooyu yëpp itam nag xam nañ ne gàllankooru autorité coloniale bi am na ci solo lool am na ci solo lool waaye teewul Cheikh ma Moustapha ca xikma ba ak ca ñaw ga. Euh, góor taxaw na taxawaay bu am solo góorgóorlu ba convaincre dégg nga colonialiste yi ba nga xam ne ña nga xam ne ñoo nekkoon ca ca biir di yàq ak di raxas ak di jaxase ngir bañ liggéey bañ am ñooñ ñëpp ñu seppi leen ci ba ñu set wecc ba ni nga xam ne noonu la liggéey bi tàmbaliwaate kon loolu li ciy déggee rek mooy cosaanal jumaa ji moom borom daaru am na ci cër bu rëy rëy rëy rëy boo xam ne ci sëriñ bi la bàyyi ko moom mi nga xam ne mooy borom jumaa ji te moo dig mooy mooy ki joxe ndigal li te ba mu koy digle itam dafa waxoon ne suñu borom moo ko jox ci géej ga ba mu ko koy jox itam ba mu ko joxee bàggal itam mboolem ñam fa ñam fa bokkaloon nekk muy maanaam malaayka yeeg ak jinne yi dikkal nañ ko doon laaj ndigal ngir tabaxal ko ko ni mu ko bëggee ak fa mu ko bëggee waaye mu mu mu maanaam dogal leen ngànt ne leen dama am ak njaboot te bëgg naa ñu jariñu moo waral bi mu ñëwee mu woo leen ñoom ñu wax leen ne mi ngi noonu ku ci feeñ daal danga feeñ ba faaw waaye ku ci Euh, feeñu itam alias billah rek noonu ko suñu fàllu leer rek Cheikh Mouhamadou Moustapha ci ay ndénkaaneem kon borom daaru la sëñ bi woolu jox ko ndigal li boole kook bokkam yu baax yi mu ko booleel ña ko na ngeen sóobu ci liggéey boobu ku ñëw na leen ci fekk waaye kuy dem itam na leen ca dégg nga bàyyi muy liggéey bu am solo boo xam ne euh, tey ji gis nañu résultat bi kon bu ñu demee ba tey yàlla def ñu am euh, cër bu rëy rëy boo xam ne du ñu wax ne sax dañ koy dañ koy sédd ndax sédd day mel ne moom xëy na <laughs> da cee bokkul wala day ab jàmbur waaye moo moo moo ko moom moo moom cër bi waa xidma xam nañ ne borom daaru moo moom cër bi waaye nag day dañoo bëgg a feeñal rek kenn ci jàmbaari sëriñ bi kenn ci ñi nga xam ne da liggéeyal na liggéey bu rëy boo xam ne ndaw ñi góor ñi jigéen war nañ koo xam ndax bi muy liggéeyal sëriñ Tuubaa liggéey bu rëy boobu wax naa ko léegi booba ndaw la ci zahir waaw koo xam ne bi la sëñ biy jox yoonu murit ak responsabilité bu bi seex si eh, taalibe yi ak njaboot gi ak yoon wi loolu ni mu rëyee sëriñ bi jox la ko te sëriñ bi buy joxe ci ndigal yàlla lay joxe mu dénk la ko te booba ci fanweeri at ngay toll loolu ku ne xam na ne responsabilité ndaw ndaw lu mat bàyyi xel la yaakaar na bind bu am solo la boo xam ne ko jàng xam naa sëñ bi li euh, ñu joxoon ci waxtu mi ngi mi ngi mi ngi bëgg a mat li ñuy li ñuy jeexale rek mooy rek ñu gën a delluwaat gën a xoolaat jaar-jaari borom daaru gën koo nafaraat yàlla def na wax dëgg yàlla ak njabootam ay jàmbaar lañ ay borom yi xam-xam yu mag a ngi ci ba ci tey jii ñoom sëñ ñu ko waxtu ku nekk ñu ngi ñu ngi taxaw di bind di di waxtaan fàttali di leeral ak dundam ak li ko boole woon ak sëriñ bi ngir ndax xay na tu tànk yi ndaw ñi man cee jàngee waaye mag ñi ca dégg maanaam man cee fàttali ko loolu nag jàpp naa ne képp koo xam ne yàlla dogal na nga am lu mel noonu maanaam patrimoine bu bu riche noonu ci xam-xam am ko ci ci ci ci ay valeur ay jikko yoo xam ne wares na koo mën a wone ba ñëpp mën koo gis da nga ko war a wone ba ñëpp gis ko ndax mooy tax njariñ li gën a mat mooy tax itam ñu dégg njëriñ li gën a yaatu kon nag ñu ngi ñu ngi ñaan daal suñu borom mu gën ñoo fayal borom daaru waaye gën koo booleeg itam nag euh, maanaam ka nga xam ne moo doon magam ju baax ja doonoon sëriñam ba doonoon xaritam ba doonoon léppam ni mu ko waxee rek loolu fa ma tàmbali woon rek fa fa laa jeexale moom mi nga xam ne lim seede ci moom kenn mënta wax ci borom daaru ba jot li sëñ Tuubaa seede moom ndax lam yu xaalif nii ak lam yu faariq nii moom sëñ bi daa doy sëkk ak yeneen yeneen nag yeneen taskiya yi nga xam ne moo ñëw ci bataaxil yi ma doon junj fii te ku ci delluwaat da ci fekk lu bare bare bari na yoo xam ne mi ay mission yoo xam ne bu ko daan bu ko daan santaane ci njaboot gi njabootuk boppam ci borom daaru lay jaar yooyu gis nañ ko ci ci ay lettre am yu bare bare bari xëy na dafa dafa dafa dañuy bañ a guddal rek waaye bu dul woon loolu kon ñu ñëw ci joxe ci ay détails yu gën a yaatu yaatu kon ñu ngi daal delluwaat di sant bu baax si Abdou Khoudous xam naa bëgguma guddal lool waaye te xam naa ñàkk a waajal gi ma ko ñàkk a d dëgg-dëgg eh, sax sax xam naa da ngeen jàpp sax ci ci ci document yeeg yooyu waaye donte sax nag eh, am na lu ñu xam lu néew néew waaye rek wax dëgg wax dëgg jàpp ngeen ci ak xat-xat yi ñu fekk ak euh, màggal gi yëf yi waaye alhamdulilah ñu ne woon nag dañu lépp lu ci lu ci lu ci matut suñu aboo ñëwee moom ko matule <laughs> bu ko defee waaw bu ko defee rek ñu ñaan yàlla lu ci lu ci dëng rek ñu jéggal ñu ko te xam ne sama matadee waaye lu ci mat itam maanaam nga gërëme ko yàlla rek ak baaxu sëñ Tuubaa ak ak ak ak itam barke borom daaru itam nag ñu ngi ñaan yàlla fayal ñu ko te dolli fee gën a yàggal ak njabootam yàggal fi xalifaam bii nag Cheikh Amadou Bachir suñu maam ju baax ji na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko lool ci ginnaaw Cheikh Ahmadul Muntaxa ñu ànd liggéey bi ak njaboot gu baax gi nga xam ne ñoo ñoo ne ci wetam di ko wettali ba liggéey bi àgg fu kawe njort ci kawe ci mat ci sell ak ci taar barakat Cheikhana al wa rahmatullahi taala wa salaam wa rahmatullahi taala wa jërëjëf Serigne Fall wax dëgg fi yàlla waxtaan wi rafet na waaye tamit neex na lool ci ak dégg yaakaar naa képp koo xam ne yaa ngi doon teewlu mën nañoo wax ne jëlaat nga ab bind bu bees ci ni mu ko doon waxee kon xam naa dañuy daal di tënk tuuti rek ci ni nga xam ne waxtaan wi noonu la ko doon jàllale ginnaaw boo xam ne eh, commencé na ci fu mu sosoo wax ay waajuram muy Mamor Anta Sali Mbàkke di waajuram bu góor waajuram bu jigéen di soxna Faat Isa Diop mu gane jamono ci atum 1863 dëppoo gàddaay gi 1283 ca Poroxaan su ma jumul su ko defee ci noonu la feeñe jamono doon it koo xam ne euh, comme ni mu ko waxee sàng rek ku amoonub cër la koo xam ne ab cëram ku tedd ki teel na koo xam ndax teel na ko euh, waajuram teel na ko ci euh, jox ay ay ay junju yoo xam ne teel naa tax mu am ak euh, yoo xam ne ay man bu ñu doon wax dañ naan tafaawul la man ay gàtt nga yu baax la woon yoo xam ne teel naa tax moom it mu teel koo bàyyi xel ba euh, daan ko ba ba ba nga xam ne daal su ñuy wax daan ne fekkee da ko doon li muy ànd ak moom mu commencé euh, yoon wi ngir ne daa daa amoon ab cër boo xam ne war na koo taxawee ci yoon wi taxoon na cër boobu mu waroon a am ci yoon wi doon cër bu fës taxoon na sëñ bi teel koo bàyyi xel doon ko toppatoo bu baax a baax kon bu ko defee rek daanaka loolu loolu ci la ci la waxee ni nga xamee ne foofu la jàngee wax ne sëñ bi daanaka bu ñuy wax ci am jàng dañ naan sëñ bee ko jàngal moo ko jàngal ci lépp bu fekkee génn na tamit comme ni mu ko junjee sànq génn bi doonut génn boo xam ne génn bu sori la waaye loolu ngir barke la woon rek boo xam ne mënu ci woon a ñàkk su ko defee kon ci noonu la jànge moom daanaka léppam njàngam mi lépp li ci ëpp yëpp sëñ beek ko sëñ beek defal kon xamante ne boole ci tamit yar ko yar boo xam ne ndax xamoon na ne kat kuy am mission la boo xam ne moom la war a taxawee ci euh, mission wu sëñ bi wala boog ñu wax ne ab taxawaayam wala boog boo xam ne waroon na ko jouer ci euh, mission wu sëñ bi kon loolu na yaakaar naa rôle la boo xam ne kenn ci ñun nattablewul euh, ne joxe na ko ba mat ba mu mat sëkk su ko daanaka loolu ku ko xool ci ni mu ko doon wax waxtaane ni mu feeñee ci waxtaan wi di nga xam ne rôle la woon boo xam ne feeñ na ndax ni mu feeñee mooy bi fi ku tedd ki di jógee moom la fi moom la jëloon lépp dénk ko te yaakaar naa ndénkaan loolu tamit bi ku tedd ki dellu see tamit amu ci lu ko naqari waaye lépp mbégte la ah, ba tax na sëñ bi xëy na sedd gum sedd sedd xolam tax na ba mu mujjee mu am ci moom cër boo xam ne ah, taskiye yooyu sëñ bi doon def feeñ na bu baax a baax ndax comme sàng bi mu koy wax daan ne almasbuuxu bi naa loolu xam naa leeral ko ci wolof man naa kii waaye comme ni ñu wax rek mooy koo xam ne dafa jeex tàkk ci ci moom jeex goo xam ne loolu suñu borom du ko defal lu koo xam ne daa texe texe goo xam ne ak texe di dóor ca toppati ba faw waaw kon yaakaar naa bu ko defee loolu dafay day wane rek cër bu mu amoon ala taxawaay bu mu amoon ci ku tedd ki daan ko woowee al muridu saadix ah, daan ko woowee al aqur raaiq daan ko woowee al adadul yooyu yëpp di ay woowin yoo xam ne li muy wane rek mooy nit ki mooy ki la jege waaye mooy sa loxo jor mooy sa mooy sa lépp ci gàttal kon loolu di lu am solo ndénkaan yooyu nag wala boog euh, rasaayil yooyu mooy leetar yooyu nga xam ne sëñ bi doon na ko bind comme ni mu koy waxee rek ku ci delluwaat yu bëree bëri dina feeñ waaye yooyu nag ma leen xamal ne am na fii nii ci exposition bi yu bëree bari mooy cadre yi ngeen gis suñ ginnaaw nii yooyu bëree baree bari mi ngi mi ngi fii nii kon dañuy bañ a guddal bu baax a baax ci ci ci loolu ah wax na tamit fàttali na lu am solo muy taxawaay boo xam ne am na ko ci am na ko ci jumaa ji kon loolu doonoon loo xam ne xëy na ñu bëri mën nañ koo réere waaye nag lu am solo la nit ñi bàyyi ko xel xam ne ñoom moom ca ba jumaa ji di door ca ña ko doon njëkk a waajal maam na ci la bokkoon kon tey lii nii day uh, day firnde waat rek ne ab cëram la suñ ko delloo delloowaatee lii nii wala suñ ñëwaatee di waxtaanaat ci moom day doon waxtaan woo xam ne ñëw na ci ñëw na ci ñëw na ci jamonoom kon loolu di lu am solo waaye nag mu mujje lu am solo muy wax ne maam nag bi ko ku tedd ki di dénk yoon wi booba ci saayir ndaw la woon waaye kon nag ndaw yàgg naa am ab taxawaay ci diine lislaam waaye yoonu muri tamit bu ñu ah, ndaw maanaam ku ci amub cër la comme nag buñ kon ndaw lu nekk ci yoon wi kon da war a jàpp ne daal am nga am nga royuwaay am nga royuwaay wu dëgër a dëgër am nga ay royuwaay yu dëgër a waaye am na am na ñu ci fës lool bu ñuy doon lim ñi ci fës dañuy dañuy commencé mën nañoo commencé ci Mame Thierno kon loolu di la am solo loo xam ne mat naa bàyyi xel lool xam naa du ñu guddal lool lool ci côté googu dañuy santaat bu baax a baax suñ fàllu di ñaanaat suñ borom yokk xam-xam bi bu baax a baax a baax gën la fee yàggal gën laa may kattan gën laa may tawféex ba li nga xam ne yéene nga ko ci liggéeyal ku tedd ki suñ borom gën la koo jàpp ndalal gën la cee defal tawféex ci barke Sëñ Tuubaa kon dañuy jébbal kàddu gi rek Sëñ Abdou Khoudous mu barkeelu ci su ko defee ñu ñu ñu daal di jox mbokk yi ñu barkele ci bala ñoo yëkkati jataay bi bisimilah. kon bu ko defee dañuy jox kàddu gi sëñaboo Abo mu mu mu mu yëkkatee kàddu wax ci surtout sëñ Abo Sall waaw moom sët ci sët ci borom daaru aywa kon bisimilah sëñ Abo. Mouhamadou ko ñaanal yàlla gudd lépp lu mu bëgg a ci yoonu Serigne Touba yi mu def ko noonu lañ koy ñaanale sunu maam sunu Serigne Cheikh Mouhamadoul Bachir bi fi nekk toog toogaay borom daaru di sant bu baax nag yàlla mu nuy boole ci liggéey bi nga xam ni waa xadimatul xidma mu xadimatul xidma ñoo ko taxawal ñu leen ci sargal bu baax di leen ci sant bu baax ndax seen taxawaay ñëpp ràññee nañ ko maa ngi félicité tamit sëñ bu Bousso mi nga xam ne xam nañ taxawaayam ci yoon wi ci leeral yoonu sëriñ Touba yi Euh, ci waxtaan yi muy def nga xam ne fu nekk dana ko fa def ay Gabon ak étranger fu nekk dana fay taxaw di ko def ñu bokk liggéey bi ci biir raw Rawdu Rayaahiin mu fay taxaw taxaw bu am solo ñu ngi ko gërëm bu baax waaye sëñ Abdou Khoudous ak sëñ Modou tamit ñu ngi leen di ziyaar di leen ñoom tamit di leen jox seen wàccuwaay ndax ñoom tamit liggéey bi ñuy def fii rek fu nuy taxaw liggéey ci daaru rek ñoo koy ànd muy alwafa ak yeneen xeeti liggéey yu ñu fay def bu dee ci màggal gi yëpp ñoo koy ànd bu loolu dafa am sëñ Fallou benn coïncidence bu am solo bis bii la borom daaru jóge gis ak moo war a arrêté Serigne Touba Serigne Touba mooy le 17 safar tey heure bi ñuy wax mu ngi fekkoon borom daaru kon ci yoon yi mu jëm ci Serigne Touba. mi ko yónni woon daje naag ki ki mu ko yónni ak li mu ko wax nga xam ne sëriñ bi ca suba teel ga la dajeeg moom ba wax ko li mu ko war a wax dénk ko njaboot gi dénk ko yoon wi waaye kon nag nga xam ne coïncidence la boo xam ne nii bu am solo la kon guddi gii ñu nekk mooy 17 safar ci la borom daaru doon demee di gisi sëriñ tubaa mu nekk yoon woo xam ne nii yoon wu day waaraloon ndax ki mu àndaloon daf ko doon réeral ndax bëggoon na rek ki nga xam ne mooy Leclerc comme menacé woon na borom daaru ne ko dinaa jëli sa mag bu ñëwul ci sube ga dinaa ko jëli de force ca boobu mi ngi ànd ak lu toll ci téeméeri soldat yu armé yoo xam ne nii pare woon na pour dem jëli ko kon loolu tamit ki ni waxal wax wi di ko toog di waxtaan ci waxtaanam mi lu am solo la waaye Serigne euh, Fallou abordé euh, point yu am solo waaye xëy na man li ma ci bëggoon complété rek mooy ci jikko yi borom daaru jikko yi mooy li nga xam ne tey ñun ñi ñëpp ku ci nekk ay jikko yooyu soxla ci jamono ñu ndax li ñu wax naan courage tubaab naan ko courage naa ko patience naa ko persévérance naa endurance naan expérience loolu maam Thierno Birahim moom la amoon loolu la ñuy wax fit di muñkat ku am jom ku am xel ku jub yooyu yëpp dafa daje ci maam Thierno ca lu ci nekk mën nañ ci teg baaraam su ma ci jël woon rek benn ci li ñuy wax courage maanaam am fit damay faral di ko wax gis nga rapport bi nga xam ne moom la Leclerc def xam nga tubaab suy def rapport du bàyyi dara ndax si rapport bi daf ne le frère di marabout se présenta à mon le 10 août 1895 nee na bi mu taxawee sama kanam dama ne ko seen mag na ñëw walla dinaa ko dem jëli ci force ca bu ma demee lu lu lu ko ci fekkee rek noonu la ci yàlla xam ne ni boobu am na sax luñ pare loo xam ne ni suñ sañoon dañuy faat bakkanu sëriñ bi loolu ci loolu nee na bi ma ko waxee di ko tiital nee na garde yi ñu ngi ma wër waaye Leclerc mooy bind dafa wax ci tubaab ni ak il mes menaces avec un demi-sourire xam nga tubaab buy dem bay bind loolu kon xam na maam na war na ko lu ëpp loolu parce que ak il mes menaces avec un demi-sourire mooy xoqatal bi ma ko xoqatal dafa muuñ ay ak ak muuñ la ko la ma la ma ko delloo témoignage la ci ci ci fitam ña ngi koy nettali fitam tam digganteeg mbaaxaan bi mbaaxaan ñëwee ah, ànd ak gàngoor ngir seet arme yi maam na fi mu toog bougé wul daf ni dégg toog am fit woo xam ne nii daf na ko sa jaasi ji boo amoon fit na dal ci nit ñi mbaaxan dégg naa ñëwaan na jaarul moxti di ziyaare sëriñ borom daaru nee na li ma jaaxe ci borom daaru la ma gisoon ci moom ci ba ma koy seeti ak li ma gisoon ci moom tey amul soppiku kon borom daaru loolu lu am solo loo xam ne mën nañ ci inspiré wu muy courage boo xam ne nii loolu yàgg na ci moom bu dee jub tamit dangay xool li nga xam ne moom la ko Serigne Touba dénk xam nga sëñ Fall wax na ko nee na borom kër gi bi mu dellusee ba toog ak moom ca daarul man naan Serigne Touba dafa yéemu dafa yéemu nee na ci matériel bi nga xam ne li mu ko dénkoon dañuy jox sax anecdote nee nañ kaasu attaaye ban sotti woon sax noonu la ko tege woon. borom daaru de xanaa yow man su ma demoon. yow soo demoon man ma toog lii duma ko mën kon kooku jub ku jub la ñuy dénk alal ku jub la ñuy dénk njaboot ndax nee nañu balaa mu ko doon dénk njabootam sax toog nañ sax mu xamal ko na ko ci kër gi am na ku mu ko bëgg a jox wax ko ko ay yoonu yoon borom daaru tànk tànkam lu ko kon xam nga kooku li ñuy wax fidèle serviteur koo xam ne nii maanaam comme ni ñuy nettit ci jikko yi Seydina Aboubacar nga xam ne fidèle ak bëgg ki nga àndal nga xam ne da nga koy sàmmal alalam sàmmal ko njabootam loolu xam nga muy taxawaay boo xam ne nii borom daaru taxaw na ko ci wetu Serigne Touba leneen li tamit buñ xoolee histoire borom daaru maanaam diggante poroxaan bi nga xam ne moom la gane àdduna Njaabokunda ñu tuddee ko fa ñu jóge fa bi Màbba euh, daanoo ñu dellu Mbàkke Kajoor mun ñu nekk ak seen seen seen jur seen Mbàkke Moor ba sëñ Mbàkke moom fii sëriñ Touba nekk ak moom ñu jóge fa dem Mbàkke Bawol jóge fa Daaru Salaam dem Mbàkke Baari ba bi ni arrêté sëriñ bi mu dem Daaru Manaan ba mu fekkaat ko fa sëriñ bi en 1912 borom Touba ne ko demal nag ci Daarul Moxti mu jóge Mbàkke Kajoor di dem sañ ci Daaru Moxti maam no loolu lépp dund na ay dund yoo xam ne nii mettit gi foo ko takk rek weesu na ko ndax nee nañu même bi nga xamee ni sëriñ bi dem na ci géej gi li ñuy wax quarantaine ndax boobu tubaab bi ñëpp ko ragal quarantaine maanaam dañ lay teg fële rek kenn du nangoo yenn mbokk yi duñ nangoo jaxasoog yow kenn bëgg joxasoog yow parce que ñi wax sëriñ tubaa ci géej gi waaye nag boobu tubaab bi mu ngi continuer di xool ñii fi nekk lan la ñuy def ca maam Thierno boobu euh, xat na xataay boo xam ne nii. am na foo xam ne sax dañ ko foo joxoon foo xam ne nii pour mu bay fa ñu tudde ko mbay dee ne nañ ko jox lii rek ndax mu mu mu moom mu bañ a am dara yooyu yëpp mu koy muñ comme li sëñ Fallou wax ci feebaru yi dugg ci njaboot gee ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii xëy na yëpp nu ñu ko wax parce que juróom-ñaari at ñun ñi ñëpp ku ko nattoon sa bopp rek da nga xam ndax xam dara la ñun ñii ñëpp ko ci sa mag bàyyi woon juróom-ñaari at bàyyi la fi ne la toogal fii sama njaboot toppatoo ma ko ah nañ seet ndax dinañ ko mën kon xam nga loolu kon loolu lu lu lu doy waar dundam gi yëpp nag moom dafa doyloo woon sëñ Touba ci yépp bañ na ko ba njabootam ku ci gane àdduna sax day bind sëriñ Touba lettre ne ko soxna diw am na gan sëriñ tubaa bind ko lettre ne ko nanga ko tiddee diw na ko tuddee na nga ko jox tur wii loolu bi mu nekkee. ñu ngi koy nettali ci bi mu nekkee Téyeen bi nga xam ne sëñ Abdourahman gane na àdduna mu fekk boobu sëriñ bi mu ngi ci pàkk boo xam ne da ko tuddee Daaru Rahman mu ne nañ ko tuddee sëñ Abdourahman ñu teg ci ay at sëñ Abdou Khoudous gane àdduna mu fekk ko Daaru Khoudous mu ne nañ ko tuddee Abdoul Khoudous kon ñoom mook Serigne tubaa seen relation maanaam ci diggante nit ak nit ci diggante nit ak mbokkam ci diggante nit ak frère ku ci mën a ku ko mën a xool war nga cee mën a jàng xool ndax yow natt sa bopp ci sa relation yooyu noo ko noo ko téye leneen li tamit mooy ni mu déggee waxu Serigne Touba ak ni muy jëmbalee murit gi ni mu ko dundalee man dama naan boo xoolee Serigne bu mag bi xam nga dañ ne lu mu jur rek da ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi moo tax tamit ñi mu joxe. tur gis nga ay Abdourahman Abdoul Khoudous yooyu Serigne Touba moo ko joxe tur mais euh, Mame Thierno Birahim tudde na juróom-ñaari sahaba yoo xam ne ni Serigne Touba lay ak àggil mottilam xam nga xasida gi ayaa xadimal moxtaar xam nga bul fàtte li <laughs> nga xam ne ñoo ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ma ni tudde na euh, euh, Serigne Amsadou Seydina Amsa tudde na Serigne Aliou tudde na Seydina Omar tudde na Abbas Khalid ibnu walit tudde na Zubayr ci da ngay xool sax ay tur yoo xam ne nii Daaru Muxti rek nga koy gis ah kon loolu day wone maam Thierno Birahim maanaam connexion bi mu am connexion bu dafa nekk connexion bu grave boo xam dafa ko am ak Serigne Touba ah, ah, bi ma doon euh, liir aussi archives yi dama am beneen élément bu ma gis boo xam bu doy waar la mooy ci loolu ma wax ak Leclerc élément bu doy waar la xam ci discussion bi Leclerc def na ko sa mag bu ñëwul suba ci waxtu wi dinaa ko jël jël engagement ne ko dina ñëw mag leen xam nga loolu xool loolu lu xóot la naka la maam Thierno jëlee engagement ne ko dina ñëw waxul ak Serigne Touba mu jël engagement sa kilifa yi kon xam nga ñoom ñaar mooy la may wax rek ñoom ñaar li sëriñ mosu ñoo jur mosu ñoo teq ay dañoo bëggante ànd ci àndu ngor ànd ci àndu diine ànd ci àndu is ànd ci àndu diggante sëriñ ak taalibeem kon daal pour ma gàttal foofu rek mën nañoo yem loolu ci diggante borom daaru ak sëriñ Touba ñuy santaat ñëpp nag di gërëm yëpp di ñaan yàlla lii ñu fi waxtaane yàlla sotti ñu ci barke bi ñun ñëpp muy 17 safar bi ak 18 safar yàlla bàyyi fi mag ñu baax ñi ci yël liggéey sëñ tubaab bi ñun ñëpp ñu am ci loo xam ne nii dana romb sunu xel wasalaamaaleykum wa rahmatullah ok jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ yi rafet na lool maanaam li moom xam naa mënu ci woon ñàkk tabaarkalla jo ak jokk la goo xam ne bu eh, am solo la waaye connexion bi ma xam naa day dëggal sàng rek li maam li suñ Fall doon wax ne nee na ko xorondom wa doon dox ba ngeen taxawee ca tund wa sax <laughs> xorondom woowa ba muy dukkat maa ngi koy dégg kon yaakaar naa buy jël conne buy jël beneen engagement tamit yaakaar naa moom du doon lu koy jaaxal daal ndax yaakaar naa kon connexion bi war naa war naa mën a am bu baax a baax kon xam naa dañuy daal di wéyal rek daal di jox waaw. Euh, euh, waxtaan yi loolu moom mënu ci woon a ñàkk jël kàddu cant ak ziyaar jaay Serigne Bachiru Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo yore kàddu borom daar yi moom itam di kenn ci ñun wax dëgg yàlla ndax uh, dañuy soññi di di wane cofee la wax yu bari yu baax yu bare bare bari moom itam moom laa bëggoon dama ko waroon a boole ci may tàmbali waaye maa ngi koy bu baax a baax di teg ci loxoom ziar mboolem njabootuk borom daaru gépp rek waaw incha allahu taala ñaan moom itam taxawaay bi gën a yàgg bu baax a baax jërëjëf. ok kon xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek ñu jox sañ Muudu su ko defee mu wax ci turu njabootu borom daaru wax ci turu xalif bi.